jàngale ñu bari dégg nañ ko maa ngi koy bind sax bind naa ko mais bind yu ma ko bind ci ay journaux lay doon ak ay articles yu éparpillé ma ne naa dajale yëpp pour génne ko ñu doon benn livre boo xamee ni ni dana dana leen mën jariñ mu nekk ay motivation yu xamante ne moom moo waral kii di directeur fondateur bu masu droit ak sport génne bile libre mu dippee ko droit ci soutien lépp lu soxal wàllu investissement ci sport mu nekk ab élément boo xamante ne war na mun a indi gindi ci code du sport boo xamante ne dafa ñàkk fii ci Sénégal. bu ñu nee ñun ñëpp ay nit lañu kii ñuul na ki weex na mais ñun ñëpp ay nit lañu doomu aadama lañu dañuy war a mun a fonctionner valeur yooyu laa démarré beneen bi ma ne euh, sama xel euh, bon léegi euh, am na ay ay ay lu ñuy woy institution mooy ñi nga xamee ni ñoo ŋànk. sport bi ay ministère ay club yeeg façon yu demee noonu ñooñu tamit ma xool ñoom nu ñu toogee. ñetteelu fànn bi moom mooy euh, fi fi fi fi fi fi fi yi di am quoi ci mbirum sport. ñeenteelu fànn bi ni ñu bu ñu ko exploité bu baax rek danañ ci jëlee comme moom lay wax naan propriété intellectuelle. mu nekk taxawaay bu mucc ayib ci gis-gisu ki fi nekkoon jëwriñ du ñu dénk lépp lu soxal tàggat yaram. sport fi mu toll ci àdduna bi ak li mu ëmb ci euh, nit yi ciy yëngu mais ci alal. donc tey dafa ne loo xam ne dañ ko war a gën a encadrer te li nga xam ni mooy instrument bi nga xam moo gën a wóor pour ku bëgg investir donc ci ci lu mu mënti nekk ci économie wala ci loo mënti dugg mais surtout dans le domaine de mooy droit. sport dana mën a war a suqali lii di koom fii ci réew mi ngir nag amal bile plaidoyer ku ci mel ni Mouhamed ndaw Tyson nekkoon fi buuru làmb te doon dippee boppam njiitu bul faale. ak ki fi nekkoon kapiteenu gayndey senegaal te léegi mu nekk ki leen di tàggat ci wàllu football dellu siwaat nañ ci seen jaar-jaar li taxoon ñuy xeex saa su ne ak xëy na li waral ñu réussir seen reconversion ginnaaw bi ñu yóbboo turu senegaal ci fu nekk